yi nga xam ne fa la centre bi nekk centre contrôle bi euh, gis nañ fa ay xale ay ndaw yoo xamante ne nii tàggat nañ leen ñi def liggéey bu mucc ay li ñu ci gën a neex mooy téeméer boo jël ñeent fukki ay jigéen la waaye tamit ñiy jiite daanaka équipe yooyu yëpp ay jigéen lañ loolu dafa am solo ñu ngi ñuy wax sànq ni dinañu fexe ba jël aussi bokku de euh, kii ay ay dawalkat yu bëri yoo xam ne jigéen la ñuy doon euh, te loolu dina am solo di insister rek ci sénégalais yi ñu moom la seen bopp yëpp yi aar ko xam ne sunu moomeel la te dañu war a fexe ba di ko gën a mën a jariñoo ay ati at xalaat des générations futures euh, di wax ni ñi di jaajëfal bu baax a baax ñi ci liggéey di wax ne encore une fois yam na yeneen projet yoo xam ne dina ñëw waaye comme ni ko moo ko waxee sànq ci français euh, Sénégal du Dakar rek euh, projet yi baax na mais lii régler problème bi définitivement dans le moyen long terme mooy fexe ba yeneen gox yi ñu taxaw ñu defar fa ay Dakar ba nga xam ne ñu bëri ñi nga xam ne ñi ngi nekk fii ci ñàkk pexe dinañu mën a dellu seen ay gox Dakar mën a féex ñu defaraat ko ni ñu ko bëggee defar mu nekk euh, dëkk boo xamante ne nii dëkk bu moderne lay doon dëkk bu intelligente lay doon dëkk bu mën a rivaliser ak euh, les grandes capitales euh, du monde lay doon.